bàyyi nuuru ñas laay moo de xawusu diina ba tey si ndigalu xalif général bu Medina Baye El Hadj Cheikh Ahmed Tidiane Cheikh Ibrahima Niass ak imam Cheikh Tidiane Seydi Aliou Cissé rajo Alfayda lëkkaloog Seyda Moussoukoro Mbaye fas yéene amal benn téléthon bu mag ngir jàppale école bu Cheikh Abdoulaye Wilane ñu gën koo xam ci Cheikh Abdoul Barhama nekkee ci Kaffrine ci lakk gu métti gi nga xam ne laaloon na école bi moo waral jeudi bi 23 janvier bu 20 heures jotee daañu tàmbali téléthon bi si rajo Alfayda en direct lay doon mbokk yi loo leen war yónnee si numéro téléphone bi koy jaare muy numéro orange money bi si numéro téléphone bi di 78 412 53 74 78 412 53 74 lépp loo leen war a yónnee si numéro boobu ngeen koy jaare muy numéro orange money bi mbaa ngeen ñëw si rajo Alfayda 90 point 1 bee ngi nii mbokk yi képp ku si def sa dërëm doo ko réccu kon nag ku ko dégg ne ko jottali moromam ngir mu mën a barkeelu si téléthon bile rajo Alfayda FM ak Seyda Moussoukoro Mbaye ànd bu yàgg la. damane lamba naa ci gox yi ma wër ñoo pa ma yaa jara